asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, man la Seydina Ousmane Dramé bu réveil des consciences euh, dañoo diswaatoon rek ginnaaw bi Jamil Sané génnee Jamil saane bi génnee wax wax joo xam ne ñun ñëpp dañ ko bokk dëggal euh, dëgg la wax ndax baat boobu ñu naan don de soi pour la patrie ca dëgg dëgg dëgg baat la boo xam ne bu tëb kenn comprendre ko kenn comprendre ko dañ ko wax nag sànni ko mu mel ne ab takk mais ab takk boo ko tekkiwul du am njëriñ don de soi pour la patrie euh, dara gën koo wér dara gën te wér nga man li ngay def ñu teg la fa koy defee nga def ko mu jariñ askan wi jariñ la yow ndax kat comme ni ko américain yi waxee waxe dangay jariñ dangay xam xam li ngay jariñ réew mi te jëfe ko door xool li la réew miy jariñ loolu lu am la mais ni nga ko wax Sénégal defe du noonu dama ne Macky Sall cinquante trois pour cent la amoon presque génn wàllu réew mi féetoo ko moom ko ah ñu jóg nag xam ne ci tappale la ci jote ñëpp ñu futti suñ bubbu teg suñ dépense kër nu wàññi ko am na ñu sax waxuma la dépense waaye seeni bakkan da cee des am ñoo xam ne yàgg na ci kaso bi ba yàqu am ñoo xam ne toroxoon nañ leen ci dóor leen ci damm leen ci te kenn ku ne xam ne ne fii laa xam bu États-Unis li ma fi gis lii la ab président bu fekkente ne faru na ña àndoon ak moom ñoom lay indi teg ci seen kanam mu àndaat liggéey ndax kam ne àndul woon yow démb boo yaakaare ni c'est un simple sénégal comme tous les autres sénégalais da ko jël yàqal la mën na ko ndax bi fi Macky Sall nekkee da la fi ne ñukk àndeeg Macky di la xeex guddi ak bëccëg di la xeex guddi ak bëccëg ki def don de soi ba ñëw ànd ak yow futtiku di la liggéeyal war nga am ci moom confiance boo xam ne am na loolu dellu si ci moom loolu wala fi naan fay naar ba xorom xale yi tàppalewuñu xale yi bëgguñu wëruñu ay post mais xale dañoo sonn naturellement dañoo sonn jóge ci kaso bi kenn faju la kenn toppatoowu la ki la tooñ ñu bàyyi ko muy taxawaalu juge bi la àtte woon te ku ci dëgg nga affecté ko namee ko ci yeneen poste yoo xam ne yu gën a garaaw yam nekkoon du du yoon loolu du de soi don de soi ñi lay jàppale woon jàppale jël jox la ah da ngay jël jox leen ñoom itam du weccee déedéet dañoo mën a liggéey xam la xam ne ku jub nga ñu ànd ak yow ñooñu da leen di toppatoo bàyyi leen don de soi dem ci kaso bi am fa ñetti weer ñeent six mois génn daan don de soi nañu respecté ñun ñëpp te dimbali xale yi xale yi sonn nañ xale yi dama ne sonn nañ dóori leen policiers yi dóor képp képp jaroon na Ousmane Sonko ak le président Diomaye xam ngeen kaso bi nekkoon ngeen fa ngeen taxawu leen bàyyi baat bu ñu am don de soi don de soi yaa ngi nu jël réew mi Diomaye yaa ngi jël réew mi don de soi nga def yaay jël réew mi yaay président de la république man mi la toppoon ak ñi la toppoon mais pourquoi mënuñu am don de soi pourquoi mënuñu ko am pourquoi ñom itam bi nga jëlee réew mi ba noppi ñom itam ànd yow de xex te gë te gën la bëgg réew gën la bëgg réew mi sax wax mais ñooñu ñu neex andal pour liggéey la ñi ci tribunal bi dàq leen ñi jël ak réew mi téye leen ñi fi nekkoon di ngat-ngat yi. nañ leen jox cër respecté leen lii dee tax seen bokk yab leen ñu ci baree bari seen i bokk wax ne bàyyi leen politique bi bàyyi leen yi bàyyi mais dañoo dëgër bopp nekk ci ànd ci yow ba ñàkk seen loxo wala seen bët ci kaso bi kooku nga naan ko lan doon soor eh, kuy sarxe kuy sarxe sax dañ caa bëgg dara dama ne kuy sarxe ginaar di ko windeel sa bopp di ko jox nit muy dem am na loo ko defloo. ñun ñëpp bëgg Sénégal Sénégal boo seen monde soit lay def waaye nag bu ñu ko seqee ki adversaire ba noppi ñu jóge fi jël ci ay laaw jël ci ay banqueroute dafay jaadu dafay jaadu ñu taxaw wax ak ñooñu ndax victoire bii kat tànk ñooña ca lañu kenn xëcc waxi poste poste yi fi ku xiif a koy wax mais respecter doomu yi mooy ki nga àndal ba am ndam foo sam xel di dem ci moom ma Jamil ba ci suñu mu wax ko bismillah c'est mes frères c'est mes soeurs, c'est des amis nit ki nag su juumee da nga koy wax da nga il faudra pas qu'on voile qu'on se voile la face dañ nekk ci période boo xam ne période bu sensible la te man bugguma suba ñu may xool ci bët moo xam échoué je ne suis pas ce genre de personne là je préfère abandonner que d'être dedans suñu bëggee ce changement systémique bu ñuy wax il faut que ñu la responsabilité bi ñu nekk base parce que ñu mettre la en confiance nous ñooy régler beaucoup de choses parce que lepp lo ne jox ko à ce niveau il y a problème je le dis devant les caméras et je l'assume aussi je pense que n'y a pas un oreille attentif à ce sujet mota parce que je suis au niveau des Parcelles Assainies je suis responsable de la section depuis 2015 Certes, le parti est né devant, moi depuis octobre 2013 qu'on pensait à mettre en place ce parti. Et le parti est né en 2014. Je sais que je ne dis pas que ma commune est la meilleure commune, mais quand même, j'ai des patriotes très engagés là-bas. Et je suis sûr et certain que c'est le cas de Grand aussi et de Kermassar, ainsi de suite. Par contre, il y a des gens qui ont la légitimité. Il faut les encadrer, les aider à asseoir leur base et aider le parti à aller devant. Et deuxièmement, si le parti est à certain niveaux, c'est parce que ces gens étaient là au moment où c'était difficile. Et si on les met de côté, j'en suis sûr et certain que l'objectif qu'on veut atteindre, je ne dis pas qu'on va l'atteindre, mais ça sera difficile. Et nos adversaires sont là, tout prêts, à scruter les points faibles de ce parti, quel que soit le coin ou le recoin que ces derniers peuvent surfer pour obtenir ce gage de sécurité de la population et cette confiance de la population. Et tey jii suñu fi nekkee dañ ñëw pour wax nan la ñuy def ba changement bu mën a nekk changement bu ñu koy mën a apporter moo ñoo xam ne xam nañ ko comprendre nañ ko yàgg nañ ci wax nañ ko ñoom yëpp sànq loo xam ne moo ñoo xam fu métti nag il faut que nit wax ko et loolu moo c'est un parti vraiment démocratique nous ñi lu ñu xalaat la ñuy wax te kenn du que ça soit le président Bassir Diomaye Faye que ça soit le président du parti Ousmane Sonko la même chose si je si s'ils étaient là devant moi je dirais la même chose parce que nous, ñooñu jàngal ni li nga xalaat mu doon dëgg ci yow ko wax certes am na lu bëri loo xam ne ñu ko peut-être bu ñu wéetee mën nañ ko wax mais amna le minimum des choses il faut que nous wax ko te gëm na ni lo xamné moy mëna tax ba à travers les tournées que j'ai fait ma leen amul kenn ko xamné war les bras en disant que boolewuma ci bokkuma ci donc par conséquent je vais croiser les bras je me suis sacrifié pour ce parti donc le parti doit être reconnaissant envers moi il ne faut pas qu'on oublie ce slogan le don de soi Nous devons sacrifier parce qu'on ne travaille pas pour nous-mêmes on travaille pour la génération future pour nos enfants nos petits-enfants et ça c'est très important pour un pays Il faut que nous il faut que nous soyons suñu xel nous en tant que responsable au niveau des instances de base mais instances de base lay plaider tey na na na nguur gi na leen dolel doole boobu mooy tax tamit à son niveau les lu mu bëgg a samp lu mu bëgg doxal mu am facilité à ce niveau té lolu des na des na bu baax baax je le dis haut et fort il faudrait qu'on travaille là-dessus man je suis une personne mal placée pour wax yeneen ni mais amna lo xam fokk mo wax ko kaddu yuma yekati ni pour faire plaire aux gens non non c'est des constats pour attirer l'attention de ces autorités qui sont là qui nous sont nos dirigeants aujourd'hui ñoo nous ñoy actuellement ce pays ñu bay sen xel ci lolu il y a quelqu'un qui parlait de euh, C'est un gagne. qui parlait de l'État décentralisé et je constate une chose je le dis, il faut jamais affaiblir la base. te lu gis. Wow, euh, ban bokkee déglu Jamil Sané euh, li mu wax it euh, yar la ko waxe waxe ko discipline té wéer ko ci ak masla? waaye dëgg bu xasee ba jib bu xasee ba jib ah nit amul ca pexe dëggal ko ak jëfe ko képp lañ war a def Ousmane mu sell mi Ousmane mu sell mi ñun ñëpp moom lañuy wax te defe naa ne yu bokkay ànd lu sell ak lu sellul mënta ànd kon ñun ñi ànd ak moom ay nit ñu sell lañ ay ministères pexe yi ñu amit ba jëli fi Macky Sall du moom dong danoo ànd bokk sell ah, yàlla sell lépp nu am ndam li ndam li dama ne bàyyi leen daa bëgg post base bi nga xam ne moo la jàppale yow nga taxawu ko ci koñ bi ba koñ bi génn naan sonko sonko sonko banaan sonko mu sell mi dama ne ñooñu il faut ñu taxawu leen na taxaw base samp ko ba mu dëgër xoola wuti xaalis wala parti bi dajale xaalis bu njëkk Ousmane yoroo ñaari dërëm waaye nun day fii États-Unis fu ma xam te daan dajale ay xaalis xaalis yooyu ñu daan dajale fon la jëmoon ci doon de pour lan pour nga am lii tey bi nga amee ndam li ngeen am ko dama nekk jël xale yi ñu liggéey xale yi mën nañoo liggéey te dañ koo soxla xale yi dañoo bëgg a liggéey te dañ koo soxla nomination yi ngeen di def itam ah dem di namee koo xam ne fii la taxaw di saaga sa ndey guddi ak bëccëg ngeen di ko bàyyi ci poste déedéet kenn du def loolu ku fi Macky Sall indi woon nañ ko dàq mu dem comme nommé woon rek bokkutoo waa ji loolu doon soit àndoon ak yow di duñ bàyyi njël seen kër ñooñu di la war respecté mën nañoo liggéey am nañ xam-xam mën nañoo jàng ki la topp ba fal la ba fal la bu ko xeebal bu ko xeebal la xam dama ne ki lijjanti ba nga falu bu ko xeebal xam-xamam waaw te xale yi liggéey lañ bëgg te mën nañoo liggéey waaw fii la Macky Sall recruter ay nervi ñu di leen dóor guddi bëccëg suba ngoon ah lépp ngeen teg ci seen bët ba yéen seen bopp dañ leen duma denc leen xale yi àndoon ak yéen yi àndoon ak yéen. ba ngeen am ndam li am ndam li nekku ne président Diomaye il est président Sonko est premier ministre ñun don de choix lañ doon def xanaa moom defu loon don de choix comme yàlla dogale yaay séddale yaa ni ci kaw te ànd bi gën ànd bi gën mooy nga ànd ak ki bi gën mooy ànd ak ki la xam ànd bi gën mooy ka nga àndaloon di xeex ngeen di ànd waaye ka yor nu yat di la ko xalab ak di la saaga di la sànni nga bokk fa mu nekkoon loolu mënta neex xale yi nit ku ne nit la koo domp mu yëg ko ma daal dama bëggoon ñu jublu ci Sénégalais yëpp Sénégalais yëpp waaye ñëpp mënuñoo doon ay tailleur ñëpp mu doon ay cuisinier waaye am na ñoñ am na ñoñ ay laago lañ yor am na ñoñ suul nañ seeni doom te waa Pastef am na lu ma seddu ci yéen don de choix boobu ngeen di wax tax na bu nit faatoo sax du ngeen ko jàllee bu nit dee du ngeen fa taxaw ni ko sigil ndiggaale mam ci ay preuve yu bari waaw ñun su ñaari doom des nañ ci des nañ suñ ñaari doom des nañ ci am nañ ci doom yoo xam ne aussi dañoo jàngi Canada ba dikk ba commencé liggéey màkki xam ne kii seen bàyyi seen bàyyi àndut ak màkki màkki dàq yàq liggéey ba ñooñu don nga leen di wax ah dama ne am ñibbi toog fas yéene liggéey mais ba màkki xamee ne famille boobu d'accord nu Macky Macky da leen la dàq ñu def seen yoon kooku nga naan don te mën a jàng Macky mi ko soxloon indi ko ñàkk gëm Macky tax Macky dàq ko yow nga dikk mu gëm la te yaa tax mu dàq ko ah amul fenn lu delluwaat ci àll bi liggéey nga naan ko don ah, sama grand frère El Hadj Ibrahima Dramé lu mu dajul ci Pastef amul. ñaari doomam faatu noonu ay doomam ne ci kaso bi ba tey ba tey ku dëkk Pastef ñëw fa ne ko sigil ni gaale ngeen naan don de choix ah bale ni ngeen di waxte jublu ci nit ñi activiste yi doon nekk fii ay àqi na toon nag bëgguma tudd tur sax xale yu am xam-xam lañ xale yu bëgg liggéey lañ duñ ay saagakat ay liggéeykat lañ d'accord don de choix lañ doon def mais bu mérité poste na leen ko jox waaye bu nekkee da doon saaga da doon nàngam seen yoon nekkul ci ñoom dañ laa jàppale ba nga falu danoo baax xam niñ bëgg ànd ak yow nga ne ci dëgg moo tax nga falu kon ci loolu nekk lu ne sam xel war naa dem ci ñoom ngir naan dox de choix pour la patrie ñun dañoo xam patrie dañoo xam patrie xanaa ku ku am souveraineté koy xam ah? ñu am lu leen naqari leen ñu am lu leen naqari jóg taxaw xar seen tànk tuubay di xeex surtout base politique seen base yooyu toppatoo leen ko base yi topp moo leen di may ay député assemblée nationale base yi ñooy tax ngeen dëgër base yi ñooy tax ngeen toog toppatoo leen base yi ngeen teg leen ci yoon waaye don de choix don de nangam ak yooyu amu fi kenn boo ko wante dëgg nañ dimbali ñëpp ñëpp ànd joxante loxo futti ku liggéey bokk defar jub jubal ànd di jubbanti waaw te li gën a baax nag ak ka gën a baax mooy ki nga xam ne moom nga fal fal ko te xam ko fal ko te ngeen yàgg a ànd fal ko te bokk ci parti bi fal ko tamit patriote boo xam ne yitteem yépp la bàyyi topp leen ndax dangeen li ci dëkk kon kooko bu ko ne rek don de soi baax na mu dem ak akob laagoom loolu kenn du ko def Bah, le président Ousmane jóg ci yi été révolte été indi ay de choix ñun yoy liñ intéressé daal jot ci réew jot été ci jox nañ été joxé wul été été dañu bëgg liggéey liggéey lañu bëgg jox ñu liggéey te choix

naan la mu sell meeg mu sellul mi loolu duma ko def kon ku mel ne man nga di ma gëm la ay don de soi da ngay sonal sa bopp te gisuma nga def don de soi ñii faatu dem leen jaali ji leen ñii ci seeni doom des dem leen jaali ji leen te ngeen organiser organisation boo xam ne bu am solo la ndax affaire sociale xam ngeen ko parce que bi ngeen fekk yor leen ñaari dërëm noonu doon ci àll bi dajale xaalis di leen ko yónnee loolu mooy social lan doon def muy social politique mu ñëw ci yéen tey bu ngeen demee ba toog ci chaise bi yor lépp naan ay don de choix yooyu bu bu leen fontoo jël leen jëmil saañe bi ak ñeneen ak ñeneen ngeen jox leen poste yu wér xale yu jub lañ xale yu mën a liggéey ànd ak yéen bu ngeen am ndam waaw na ngeen taxaw ci ñoom bu ngeen gaawul ci seen base yi nag base yi da ngeen ko rëccu billaay bu ngeen gaawul seen base yi toppatoo leen taxawu leen da ko rëccu te ngeen may xel cadres yi nekk États-Unis ay jàngkat lañ ay boroomi xam-xam lañ ay professeur d'université lañ ay ingénieur lañ nekk ci compagnie américaine yi doon fa ay kilifa il faut ngeen jox leen seen nommer leen ñu liggéey danaan don de choix nañ nañ leen nommer ñu liggéey ñoom ñëpp xale yëpp am jom fi aux États-Unis ay liggéeykat képp fa dañoo am xam-xam rek ngeen leen ay don de choix ba pare kii doon premier ministre que doon président rek ngeen fal seen i député toog mais xanaa ñi seen i day bëgguñu dara ak seen i waajur am da ngeen bëgg ñu dee ci àll bi benn yoon nga naan don de choix li Jamil Sané wax dëgg la waaw lii ni mu wax daan naa ko boroxal sax mais ñu bëri dañu damay yàq bu ma koy wax ma xam ne nag mu société la te ñëpp déggoowuñu baal ma teggi sama tànk waaye ginnaaw ba mu ko waxee nag moom dama koy dëggalal moo ni ci dëkk Ousmane ñi nga àndaloon ànd li rek ñoom liggéey mën nañoo liggéey ni fi nekkoon dina sànni xeer ak saaga ndey lu muy ci dugg duy teggin sax mais nag ku ci qualifié mais pour nga ñi pour ñu comme américains yi français yi di ko Sénégalais non non non non. am nañ ñu la ci doon taxaw guddeeg bëccëg di la tëjee ko tijjee ko saaga ko dooro ko dam ñooñu bala nga leen tal na nga tal ñi àndoon ak yow ba ndam lii am te ay liggéeykat lañ dama ne du question poste mais dañoo bëgg a liggéey xam fi ni jaar réew mi fi jaar ba Daniel Macky Sall foofu lañ bëgg jaar ñoom ba tabax réew mi moo il faut le mettre en considération te yéen waa Pastef ngeen am yitte ci nit ñi ku ci amulu góom wala sa nopp des ci wala nga pat wala nga jële ci ab laago wala nga deele ci war ngeen am benn délégation mu dem seeti leen lii moo tax ñu bëri di mer di wax il faut respecter les autres waaw parce que les autres ñoo tax ba ngeen nekk fii kon saraxuñ leen ab sarax ab liggéey moom def def nañ ko ba noppi ndam li génn nañ bokk respecté ñépp te teg ko ci yoon mangi ngi jégalu bu baax a baax a baax di félicite nag ñi doon live ñëpp liggéey bu rafet ngeen def avant Ousmane Sonko koy commencé yéen a ngi ci ànd ak moom accompagner ko ban am ban ndam am dama ne boromi xel ngeen boromi xam-xam ngeen nan jël poste yi jox leen ko ngeen ku liggéey waaw te affaire don de soi bu ko ngeen xëpp ci seen i bët doon de soi ba doo jàpp Marine Faye Sall don de soi ba doo jàpp Bassirou Gueye doon choix ba xoola bàyyi leen dañuy xaar ba am loi loi ay article ki loi non flagrant délit jàppal Bassirou Gueye li de flagrant délit la jëru xaar di jàpp Bassirou Gueye ah Mame Mbaye Niang li mu def flagrant délit la nañ ko jàpp def ci kaso bi jërul xaar yii ngeen di wax amul leen civilisation yi tubaab yi sax di xewel nañ ko dañ ko nax ay démocratie ay la loi article 10 article 14 ba doole bi nek fi ah di sàcc ke jël lam sàcc mu tey ko diko lek ndank ndank ndànk yow ngay xaar loy xaar c'est un voleur flagrant di jappal def ci kasso bi te ñi andono yow bu ne doon choix loolu waa ji doon liggéey ba sàcc milliards yi ñi nga àndoon man nañ ko liggéey dox leen li liggéey bi ñu liggéey ma ngi siyaare ñepp di ñaanal ñepp jamm nak di ñaan yépp jàmm rek lañ bëgg ngeen di sàkku ci yéen ñaan bën ànd ñibbi suñu ñëpp Sénégal toog fa liggéey waa ten bokk du jóg te yéen waa passé li leen wax kóllëre dañ koy sàmm ñi àndoon ak yéen topp leen ku ci amul bëj dem leen ku ci faatu def joxe leen jaxal parce que loolu suñuy suñuy aada ak suñuy cosaan waaye nit ànd yow ba dee ñu suul ci pax ma nga fàtte ko fàtte bokkam naan don le choix du ngeen ba li ngeen di wax maa ngi jégalu bu baax a baax euh, di gërëm Jamil ni mu ko waxee noonu la te xam naa ni ñi bëgg a wax bari nañ ñi bëgg a wax bari nañ waaye baatu maslaa boobu moo bloqué ñu bari ñu bloqué ñu ak bëgg ko wax ne bëgg nañ ko parti bi ak réew mi bañ a yëkkati coow moo tax ñu ne pat waaye ñim naqari bari nañ may ziyaare ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm euh, man la Seydina Ousmane Dramé bu la réveillé conscience